asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 18 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi tey nag sunu lamb fu la nuy xëy doore ko mu mel ni ki nag li olof naan booy wax xamal la ngay wax waaye lañu lay tontu moom bu ko xam ndax nag daa mel ni ki daal Alioune saar mi ñu doon yaal yaalee fan yi ci digganteem ak arbitre yi naan fii la xar ya jaar génn fële mu toog noppi jàpp boppam daa mel ni Alioune nag génn na tontu de li olof naan tontu forox loolu daal la def nee na moom li muy xaar yàlla na corona bi jeex ak jàmm rek nee bés bu jeexee moom ñii nga xam ne ay moustique la leen jàppe wala ay weñ ak yooyoo xam ne dañ fee nekk di mattaate nee na bu mbir mi jeexee tàkk moom danañ jubli ci ñoom ba ñu xam ne basi góor dong moo koy bay mu mel ni kon daal Alioune Sarr moom fi mu nekk nii moom coow lañ koy coow loo ci mën mu ngay xaar gaay ca angle ba ba nag mooy bu corona ba jeexee rek dana xam ak fu muy mujj ak ñoom wala fu mu jëm ak ñoom loolu mooy ay waxam leneen loo xam ne tamit wala ci mbir moomu dañ cay des ndax Gaston Mbengue mi génn démb da ko défendre ne daal Alioune Sarr bu fi jógee mooy làmb ji am nay jafe-jafe wala mu yàqu mu mel ni ki nag booy kayre ne na ko yow moomu di wax yow Gaston Mbengue moom jàppal sa wax jooju yow la engagé waaye nun moom yoon wi nu jël fas ko yéenee aw di dem ngir Alioune Sarr jóge fi du yow Gaston yaa nu ciy baare wala nga nu koy tere loolu moom bul ko xalaat tey suba waxi noppi loolu mooy waxi ki nga xam ne nii moo di Boy Kayre jëmale ko ca ka nga xam ne moo di do ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue waaye bu nu continuer Covid 19 wala Covid 19 lañ koy wax muy coronavirus ba moom fi mu nekk nii day daa mel ni saison ba moom yàq na koy yaxeet mu mel ni ki nag deux mille dix neuf moom saison ba daa mel ni boo bëggee dégg-dégg moom suul ko ca lañ jëm wala mu wàcc daanu ba ca suuf a suuf mu mel ni ki nag combat royal ba moom loo ci mën a dégg moom ak ama moom fi mu nekk nii ah ngir mu am dana doy waar la fa jaar nag mooy corona ba mu mel ni ki ba tey corona booba bu nu demee ci record itam yemut foofa de ndax kii nga xam ne moo di Bombardier Gris Bordeaux ba ci tafaatin moom daa mel ni seeni année balance daa mel ni fi mu nekk nii moom danañ ko continuer ndax nag amaguñu ay combat te corona ba fi nekk nii mu nga taxaw làmb ja ñu aj ko ak yeneen yoo xam ne daal ay yëngu-yëngu la moo tax record ñëw na ci lu mel noonu rëg-rëg itam boole na ko ca nee na moom de boo sàgganee première année balance am ren la koy dund moom rëg-rëg ci làmb ji mu mel ni ki rëg-rëg mooma nag ba tey mu nga ci yëglekaay ba nga xam ne nii daal moom moo di record dafa wax nag diggante ma kii nga xam ne moo di tafaatin borom takk ci rib mu mel ni ki moom pare na ngir jàmmaarloo ak kooku loolu mooy ki nga xam ne nii moo di ay waxam waaye leneen loo xam ne dañ koy fekkiwaat sunu làmb muy Tafa Gueye Tafa Gueye moom fi mu nekk nii daa mel ni tey moo xëy ngar daaju yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb ñëw fa ci lu baree baree bari ci carrière ak xaleelam ak itam ba muy nekk gune te nekk ci digg digg ndëndëm doon boy mu mel ni ki nag Tafa wax na ci lu yaatoo yaatu jëm ci li nga xam ne moo di mbir moomu mbër ma mu yoroon nag te léegi mu bërëb écréme muy Papa Sow moom diggante ak Siteu ba tey mu mel ni combat ba itam corona ba daaneel na ko moo tax nag ñaari entraîneurs ya ñu ngay wax Balla Diouf moom la mu xamle ne na fi mu nekk nii dey taxul ñu baax ndax papa moom mu ngi ci forme bu wóore wóore wóor Père Max Mbargane itam mu mel ni wax na de ne na ñoom daal dañuy gën a doubler lañ doon def bu ñu daan def benn dañuy yokk def ñaar di jatu dim soccet di xaar bés bu arbitre ba woote wala ñu ne làmb ja démarré nag ñu wane seen bopp looloo nga fa nga xam ne ni moom moo di ca yëglekaay ba mu mel ni ki nag fi mu nekk nii daal boo bëggee dégg-dégg moom yëf ya jaxasoo na bu baax baax a baax ña doon bëre nag dimanche jiinu samedi jiinu génn muy bébé jeen ak fourrière mu mel ni ki nag ñoom jot nañu leen laal ci ab xaalis maanaam mbirum dagg muy cinquante mille francs daal yëglekaay ba ñëw na wax ko ci dagg guñ leen dagg ak mbër yoo xam ne nag moom ca simple ba la fi mu nekk nii chômage la ñu dem muy ñoom caaka fay ak ñoom booy fay ak ñu mel ni ki ñooñu daal mu mel ni ki fi mu nekk nii rek chômage technique dëgg-dëgg lañu ñu nekkee donte jot nañoo gagné li nga xam ne mooy ay tournoi loolu moom ca lambi simple jëla waaye ba tey bu nu continuer mu mel ni ki tamit leneen loo xam ne ni tamit daal mu nga fa muy Adrien Senghor ca record lañ koy fekk moom daal li leer ba leer daal soo bëggee dëgg-dëgg moom corona ba tax na seen âge ba ñu namoon ñu aj ko waaye ña xam ne ñoo ajul moom ba tey ci record moo di waa Niger ñoom nag président ba nga xam ne ci wàllum bëre lay am moom le 2 avril la ñu wax ne daal ca lay démarré waaye li leer ba leer moom promoteur yi nga xam ne nii nag ñoom la Pape Abdou Fall jiite daa mel ni ki démb day ñoom itam ñëw nañ ca xeexub corona ba dem ànd ak ministre ma daar ba yëkkati ay matériel jox ko ngir jàppale ko ca xeex booba waaye yàgg maar faw tey ma rax ci football ndax nag boo bëggee dëgg-dëgg Pape Maïssa Ba di football ca France moom nee na actuellement ñoom fi mu nekk nii day dañ leen a quarantaine moo tax tey faw ñu rax ko ci Aliou Cissé moom nag dem na di jàppale ka nga xam ne moo di Arsène Wenger ak Mourinho ci xeexub corona ba mu mel ni kon corona ba fi mu nekk nii day olof a ko wax lu defu waxu lu aay di njàmbat football ba làmb ja basket ba volleyball ba handball ba marché ya njaayum fukk jaay ma yokkal ma jaay la jàkk lépp fi mu nekk nii yàgg mar aj nañ ko mu mel ni kon daal gaa yi nanu xoolaat sunu borom waaye bu loolu amee nanu xoolante biir yi bët waxante ay dëgg balonte ak ñu nit ñi sunu biir bàyyi yàqante gi waxante lu ñu ñaaw li sosalante bi bañ nit ki rek waxal ko lu bon yii nañ ko moytu ndax nag yàllaa ngi fi de jógu fi ndax feebar bii ñu naan corona yàgg damuli tànk fattul li bët xëtul nit màttul kenn waaye nañ virus la ci saw yaram lay dugg ñi mu dal yal nañu wér ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour di ci ànd ak sama mag sama xarit muy Babacar Babacar nuyu naa la. ay satu fay maa ngi lay delloo nuyoo di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di ko ñaanal internet yi waaw sama rakk sama xarit macha allah yaayu paate bëgg naa la. waaw Babacar tey dañuy ñëw dugg si waxtaan bi ñëw ak euh, suite la rek ba tey parce que démb Gaston Mbengue moo xëy daal di jël défense li nga xam ne mooy CNG tey kii di Boy Kaïré xëy andi tontu ne ko du moom moo moom moo leen di tere ñu def lu ñu bëgg a def pour jële fi kii nga xam ne ni mooy Alioune Sarr loolu nag muy tontu ki nga xam ne ni mooy boykare ci Gaston Mbengue waaw mu mel ni kon loolu tamit coow loolu ba tey mu ngi continuer rek ci diggante Alioune Sarr ak mbër yi ak Gaston yooyu waaye li am solo mooy Kayre moom ne na Gaston du leen baare du tere ñu def li ñu bëgg a def waaw yaakaar naa ne ñoom ñëpp nag dama naan ku nekk rek la nga xalaat ak li nga jàpp ne war a ne moom nga nekk di ko défendre waaye li ma leen di wax te di ko wax ku mu mën a doon nañu xool li gën yaa ngi dégg parce que olof ne na bu coow bari rek dëgg day daal di commencer réer kon nag coow li pour man bariwaay gi jaru ko mais li am solo mooy waxante dëgg te yàlla tax xool li gën ñun ñëpp ñu jéem ca ànd def ko yaakaar naa loolu mooy li parce que ku ci ci ñoom responsable nga kay ki nga ne mooy Gaston Mbengue responsable la ci réew mi ba pare kilifa la tamit lamb am na ci kàddu kàddu ka nga xam ne moo di Boy Kayre responsable la ci mi kilifa la te lambit am na ci kàddu ndax daa bëree ba bàyyi bëree tey ñu koy woowee le ku ci ne rek pour man. bu ñu ne ci taxaw fekki taxaw fi ñuy sànnante ay xeer loolu amul njariñ ñoom ñëpp xamante nañ booy Kayre Gaston tëggal na ko mu bëre booy Kayre bëreel na Gaston kon defe naa ñooñu suñu amee lu leen loo xam ne dañ ci bokkul xalaat nañu toog waxtaane ko te ñu ngi ci Sénégal ñu ngi Ndakaaru pour man loolu mooy gën sànnante pig yi amul amul sans quoi pour man waaw. Babacar keneen koo xam ne tam euh, ñu ngi ko doon xaar pour mu wax ci coow li nga xam ne mi ngi ci làmb ji muy kii di Alioune ci coow arbitre Alioune tamit moom ñëw na mais ba tey tontoom des naa leer parce que Alioune Sarr nee na bu coow li jàllee maanaam feebar bi nekk ci dëkk bi ba tax ñu arrêté lépp bés bu loolu jàllee dina ñëw ci li nga xam ne mooy weñ yeeg yooyu yi nga xam ne mooy maate <laughs> ci loolu la ñëw fu mu toll nii loolay tontoom pour l'instant ay weñ ak ay yook yooyu yuy mu ne bu covid 19 bi jeexee dina ñëw tontu dina indi tontam waaw ñu ngi ñaan feebar ba jeex ak jàmm ba tontu boobu mën a am waaye la am solo nag moom moom alin Sarr mooy kilifa ak làmb ji loolu la yàlla def moo fi nekk tey xëy na bu fi nekkul woon coow du am yaa ngi dégg te xëy na ci liggéeyam am na lu ci baax mais xëy na am na loo xam ne ña ca des d'accorduñ ci ne noonu la war a demee ba tax na coow lu mel nii am li ci gën a fës nag mooy dàqum arbitre yi waaye nag li am solo daal euh, xaw ma ay yoo xaw ma ay melenta nag lu mën a xew waaye na jàpp ne rek ñiy wax njabootam lañ ci moom la ñu bokk te dañoo war a wax moo tax ñu wax bu leen jàppee noonu rek pour man danañ régler situation bi te kenn du xep sa moroom te coow li du bëri quoi waaw waaw Babacar keneen ki ñu doon xaar euh, tonton muy ministre Matar Ba ñu ko doon woo temps yëpp ci médiation ak yu demee noonu moom nag daal di la xam la ni du moom moo war a régler li nga xam ne mooy coow bi dox diggante arbitre yi ak CNG parce que nee na bu doon ci football bi la ñu suspendre arbitre wala joueur du moom moo koy régler parce que fédération bi mi ngi fi te tamit CNG itam ñu ngi fi ku nekk na régler problème bi à l'interne loolu moom du du moom daal moo war a régler problème bi nii ci arbitre yi ak CNG. waaw olof dana joxe ba ci làmmiñ baaxul xëy na moom loolu lay bañ moom Matar Ba parce que tamit li am solo mooy bu dee seen seen comité la ñu teg leen fi reconnu par l'État mu jaare ci ministre des yaa ngi dégg ñuy doxal yore seen comité am seen indépendance di doxal bu fekkente ne loolu moo am yaakaar naa ne kon su fa problème amee ñoom ñoo ko war a régler seen bopp ak ay bonne volonté yaa ngi dégg mais moom en tant que ministre des sports xëy na jàpp na ne loolu waru la war ak li la doon doon am na loo xam ne jàpp nga ne fii la commencé yem fii kon bul bëtt ba tant que amateuru làmb en tant que sénégalais mën nañ koo woo mu ñëw am lu mu ci dugal ndax xëy bu ñu ko ci dug bu ko ci dugalee mën na am safara fa fay wala mu wàññeeku bu baax a baax a baax xëy na moo tax nit ñi di ko sollicité mais loolu mu wax tamit yaakaar naa bañal a jafe trop trop trop trop mais coow lii tey waxuma sax ministre bi mais président Macky Sall sax en tant que sénégalais mais en tant que citoyen wax ngir situation bi décanté wu war na cee a wax Matar Ba itam la mu wax bu fekkente ne ay pouvoir am mayu ko loola su ko defee day xëttu yoon te yoon nag xëttu ko moom wóorul rawati rawatina kilifa waaw waaw. waaw Babacar coow lii ba tey jeexul ak euh, li nga xam ne nii moo andi report ci biir làmb bi parce que combat yu bëri fu mu toll nii teg nañ ko di xaar ba kañ la mën a dem kii di sunu làmb daal di ñëw ak euh, ñi nga xam ne ñooy entraîneur Papa Sow ak euh, Siteu muy Balla Diouf ak Père Max Mergan ñoom nag ku nekk ñëw na wax ci état de bi nga xam ne sa mbërëm sa mbër jotoon na cee toll ak li koy xaar. waaw mu mel ni ko mbëree moom boo xoolee mën nga ne pare woon nañu muy Papa Sow muy Siteu parce que nag ay quelques jours a doxoon seen diggante ak seen combat ba boo xoolee sax matatul woon mois yaa ngi dégg kon yaakaar naa ku toll foofu ci préparation moom ci ay fini ci ngay toll mais nekkatoo ci lu lay loo xam ne ni da nga naan pareeguma yaa ngi dégg mu mel ni kon nag lu ñuy wax rek jàmm ak ki pexe mais yàlla suñu buur bi mooy dogal loolu moo am mais nag du tere ñu continuer lañ daan liggéey ah, parce que lamb ji moom ak lu mënti xew ci kàttanu yàlla am nañ ñu ngi ñaan yàlla ñu talaat ko ba mën ko bëri waaw. waaw ci dinañ ko bëri boobu la ñuy continuer Babacar ak yow parce que kii nga xam ne ni mooy Pape Dufal interpellé nañ ko par rapport ak combat bi kañ la war a am moom daal nee na fu mu toll nii day suspendre ci li nga xam ne ni mooy décision décision wu CNG parce que tamit CNG mooy kilifa bi bu lii yëpp jàllee bañ toog CNG dina war a mën a xam ban date la leen di jox pour ñu bëri combat bi nii. waaw bien sûr loolu mooy yoon sax actuellement nii fi nekk nii moom euh, buri mëntaan ak maccum lem gens yi dégg mënuñoo nekk ci wàllum feebar di wax yooyu euh, ñuy wax waxu kii làmb ak yooyu ca des kon la Pape Abdou Fall wax defe naa mooy waxi nit te moom mooy li war a am euh, toog jàppale ñi nga xam ne nii ñooy doomu réew mi ci xeex bi ñuy xeex ba loolu jeex ak jàmm su ko defee nag su keroogee CNG mi yore mbir mi mooy tracel boppam ne lii nii lay amee lii nii lay amee su keroogee ku mu mën a doon tamit da nga ci tënku quoi loolu mooy li normal waaw Babacar dañuy jeexal ak li nga xam ne nii mooy euh, lutte simple bi suñu lamb di ñu xamal ni xale yi mel ni comme caaka euh, Faye ak ki nga xam ne ni mooy booy Faye ñi ngi ci lancé bu baax ki di caaka am na cinq victoire yoo xam ne am na ko ci jël ay ndam kii nga xam ne ni mooy booy Faye amoon nag 4 mais fi mu toll nii nag ak fi situation bi toll ñoom ñëpp dem nañ toog wéer ngeen bi ba ci kanam. <laughs> waaw loolu moom force mu am parce que li oblige situation oblige mais wax dëgg yàlla ñaar ñooñu moom nekkoon nañ ci lancé bu doy waar ndax ñu ngi commencé woon di gagné ay tournoi muy Boy Faye muy caaka mais nag àddinaa ngi noonu dañuy dem rek ànd ci xeex bi rek ba corona dem ci kàttanu yàlla ñu continué ku nekk say activité ci li nga nekkoon loolu la ñuy ñaan yàlla. amin Babacar loolu la ñuy ñaan di ko dolli di ñaan chaque jour comme ni ñu koy defee yàlla nañu yàlla saafaral jàngoro ji nga xam ne ni moo lëmbee àddina te musal ñu ci ñun ñëpp musal ci dépp doomu aadama ak fu mun ti nekk ñu lay ñaan rek yàlla musal la si bu baax a baax di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp yi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di ñu safoo di commenter di jënd seeni connection connexion di seetaan leen wax yéene suñu doolee di ñu critiquer parfois parce que mooy ñu mën a améliorer wu jubbanti dafa taar kàddu gi waaye itam Babacar lakk sa fan sa boobu noonu waaw ah, lakkal na ma torop ma koy nuyu bu baax di nuyu Jérémy euh, Nogay di nuyu madoo di nuyu waa Italie yëpp waa Sénégal di nuyu sama yaay sama borom kër samay goro samay njëkke di nuyu ñëpp Babacar. am na solo ah Amar maa ngi koy nuyu di nuyu Jérémy Nogay fay waaw maa ngay nuyu bu baax a baax waaw di wax ne loolu mooy neex ay xam nga loolooy Sénégal yow yaag jabaram yaa xam ne yéen a bokk ndey ak baay naa kon c'est normal ngeen di kalante di kaf di fo di ree xam mooy sunum réew di ñaanal jàmm ñoom ñëpp duñu leen fàtte ñoom tuuti yaay Sarr Khady Rose xam nga Abdoulaye Mbaye gars yëpp ñoom Ndongo Fall ca Italie Benzema ah ki nga xam ne nii moom mooy Serigne Diour ñoom ñëpp maam Libaas Lo di rakku Modou loo nekk ca Barcelone moom tam ñu koy nuyu soppe la vraiment di sama waaye ñuy déggante lu bëree bëri di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre Habib ma ko fàtte ak l'international Youssou Ndoye Saliou ñëpp sama ay soppe lañu ak ki xam ne mooy suma yaay Penda Diawara di yaay Youssou Ndoye di nuyu tamit sœuram Mami Ndoye di nuyu képp koo xam ne tamit yaa ngi Sénégal waa groupe baax du ma leen fàtte sans ak Massamba Dieye président ba di nuyu 100 pour cent Babacar di ay fans Babacar ñoom Jiga ñoom Grand Lay ñoom Pape Ndiaye Pablo Cédric ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu tamit fans club Leewtoo bi ak Babacar muy ñoom Cissé ca Brésil ñoom Saa Tëng ak mbër ya fa nekk yépp ñoom Fat Jaraku Bomba ñu ñu ngi ci biir di ñaanal ñëpp jàmm di wax nekk rek feebar bi ñuy wax naan lii ak laa li am solo daal mooy li ñu ministère bi di wax ak waa santé bi nan ci aju te jéem a faju jéem a fagaru loolu moo am solo te ñu xam ne Sénégal ñoo ko bokk li du sunu borom la nan ko nangu def liñ ñu digal pour que jàmm mën a am Sénégal continue di nekk Sénégal ak àddina bi yëpp di ñaan jàmm ay ay soto bu baax a baax. Amin Babacar ñu joxe rendez suba incha allah.